léegi bëgg mën na dem ba deux mille trente cinq. Mhm. mais boobu bi ne non bañ. dañuy daal di seen biir. Uh-huh. mën ngay toog sa roq di wax lu neex ñu bàyyi mu seet. Mhm. mais da ngaa dëggal sa bopp rek. ñoom dañuy dëggal seen bopp. Ah, à condition que dem ba deux mille trente cinq. moom la bàyyi nga dem ah, joxe woon na benn parce que dañu war a li suñu constitution wax et euh, l'avènement du président Wade aussi war na interpeller le président Macky Sall parce que quand il a voulu lui forcer aux Sénégalais. Mhm. pour am troisième mandat les Sénégalais ont dit non. et ils diront non le déloger du palais. parce que moom conseil boobu la joxe woon en 2012. dëgg réew na loi nag bintu. ah loi. am na loi am na loi en fait ñoom bu ñuy essayer di pousser <laughs> bu ñuy essayer di forcer le bouchon aussi il faut toujours se rappeler que ki leen fa teg du ñoom ñoo fa teg seen bopp si les population sénégalaises ñoom ñoo leen fa teg et puis bu population bi buggulee rek duñ fa nekkati et population bi aussi waruñu bugg parce que africain dafa am tendance di euh, di di yàgg ci nguur alors que deux mandats waruñ ko passer loolu la suñu constitution ré wax dañuy respecté li constitution bi wax. Mhm. en tout cas ñun mhm. <laughs> moom Rocky Balboa moom ginnaaw bi mu amee defee contre Bombardier moom daal dina jëlaat ay tànk dellu si dina bëggul kenn ku dul Bombardier actuellement ndax moom moo tax mu nekk ci ay préparation yu métti métti ci noonu la ko benn organisateur proposé benn combat ak benn champion bu nekk fële ci États-Unis mu daal day bañ mu ne ñett Bombardier moo ko ñor kon bu yeboo Mouhamed Bombardier daal day pare. Mhm. affaire gi Marie Sagna Barthélémy Diaz kii lay di Barthélémy Diaz li mu nekk catholique moo tax mu nekk ci prison bi ba tey Guy Marius Sagna waaw mu ne hmm. euh, Guy Marius Sagna Barthélémy Diaz ne Guy Marius Sagna li mu nekk catholique moo tax mu nekk ba tey ci prison bi nekk bu nekkoon beneen euh, religion la bokk ba tey def nañ la tout ba mu génn waaye kii lay di Fatou Blondin Diop jëpp coordonnatrice bu mouvement aar lu ñu bokk moom daal dinay taxaw ne euh, kii lay di nu mu tudd ci Guy Marius Sagna moom combat mu wees na li nga xamante ne moo di religion waaye li nga xam ne moo di ay moom il se bat nga xamante moo di la population sénégalaise Mohamed. je pense que loolu moo gën a important. Mhm. Mhm. Euh, guerre religion yi mhm. ñu fi bëgg andi suñu Sénégal gii moo ñu gën a soxal. effectivement réew ñëpp la. effectivement moom Fatou Blondin mu soutenir ba tey rek ni lii lay di sénégalais ñoom soutenir ñu bu baax ki nga xamante ne moo di Guy Marius Sagna ndax euh, lii lay di solidarité bi dafa des bu baax a baax a baax a baax ñu am ab vidéo boo xamante ne moom taxaw na ci def ci ab sortie bu nekkee disponible au niveau de la région ñu ayca nañ dem ba tey bu fi ak vidéo bi di ñëw. <laughs> samay vidéo nay génn nag. <laughs> te defe naa ne gii ci boppam jamais mu revendiquer yooyu man euh, yoon boobu duma ci mës a taxaw duma ci mës a taxaw xam naa gii gëmul yooyu waaw li ko tax xeex mooy injustice parce que bu demee di xeexal parce que dañuy wax tey jii li xew tey jii muy mbirum niñ ko jàppee ci euh, ba muy distribuer flyers yi yegg si ba ca euh, buntu pale ba wante ci gannaaw ba muy xeexal waa Taïba ba muy xeexal waa PCC yi ba mu la mu defoon Kédougou ci ba mu gisee ne que euh, poste poste de santé ba mu nekkoon nañu nañ nañ fa doon doxalee loolu du lu du lu mëngook yoon xamul woon mooy kan Guy Marius Sagna est un citoyen sénégalais boo xam ne yàlla nag may na ko loo xam ne en tout cas bariwul ci dëkk bi Aïcha ñoo ko gisandoo mu xamee ñu jeexal li nga xamante ne moo di coronavirus bi lëmbee actuellement dëkk bi moom nag ñu nga xamante ne Italie bokk na ci pays d'Europe bi nga xamante ne moom la coronavirus bi gën a jàpp ñu ñuy yëgal ba rek ni que 23 yi nga xamante ne ñu ngi foofule ci Italie ci ab Lombardie di région bi nekk fële ci Milan daal di nañ leen di mettre en quarantaine loolu leen nag Boubacar Seye moo ko daal di génnee muy président Horizon waaye itam 6 mois Mouhamed. 6 mois xanaa waa Italie dañuy faral di lekk kii boobu noonu. ah tout cas mi ngi. te li ci gën li ci gën a graaw en Italie xam nga bu dee Chine sax bu dee Chine sax xam nañ euh, chaîne de contamination bi ni mu demee. mais en Italie c'est c'est vraiment catastrophique dafa ñëw euh, d'un seul coup ravager lu bëree bëri et malheureusement chaine de contamination bi sax xamuñu ko. Mhm. c'est espérons que mu bañ a egg Afrique. ah oui un seul pays est touché en Afrique euh, et c'est l'Égypte. Mhm. mais Égypte il faut rappeler que ci découpage yu OMS. Mhm. OMS boolewu ko ci. ci Afrique OMS da ko boole ci Moyen-Orient donc euh, ci découpage wu OMS bokkul ci Afrique. naa ci ngelaw leeg fu ne lay jaar. mën nga koo sax romb yi ko mu dugg la. est-ce que tëj frontière yi ñuy tëj frontière yi ngelaw li xam nga mënuñu koo baare dama jàpp ni mën na jaar foofu di di. jiwal nag benn proposition la. ci sa xam-xam ngay demee nii. Ah, waaw waaw ah? parce que ci ngelaw li nee na mën nga ko mooy nii ci ngelaw leeg yooyu. du ñàkk nii eh, yoonu ngaay bee la def moo la yóbbee li nga xam <laughs> loolu du ñàkk daal. ah wala gisoo lool. dëgg la. feebaru ngelaw la léegi loo wax noonu la. ayca <laughs> jërëjëf euh, Jeanne euh, bu ci kanamee tuuti nañ dellu si waat ci euh, mhm. gi moom mu toll. xéwal yaa ngi nii nañ ubbi téléphone bi rek téléspectateurs yi mën a dugg ñu jox leen ci xéwal yi. ci 88 la 628 89 90 wala 88 628 28 28 xaalis baa ngi fi 20 000 francs ba 500 000 francs Samsung A2 baa ngi fi iPhone.